bu ñu defee noonu ba noppi nag dañuy génnaat ci sow nag toog ñun commission bi nga xam ne sëriñ Modou Mamoun Bousso moo ko jiite di séentu weer ak di taatam xibaar yi ci gox bi gox yi ban ko defee ba waxtu wii jot nag boole euh, bari na béréb yu baree bari yoo xam ne xibaar jóge na fa jot si si ci nun wane gis nañ weer ba ci biir Touba gi jànn tu waa am ñu ko fi ñu ko fi bañ def ak ak ak ndaam ak ndaam gi ci seen ak yeneen biir cekkin waaw léegi nag biñu defee noonu dañoo jokkoowaat ak kër Cheikh Mouhamadul Mountakha yëgal ko loolu biñ ko ko yëgalee léegi muy mu ne loolu doy na kon mën ngeen ne yëgle ne weer wi feeñ na kon suba mooy korite na ko ñëpp xam kon suba ci àllarba ji mooy benn fan korite bi na ko ñëpp xam kon nag ñoo ngi ñaan tañ diggante yàgg bu baax a baax da daal dëgg tan yàgg ci gannaaw waaw muuru koor yi ñu gaaw génne ko bala ñoo julli ji ndax waaw muuru koor yi nañ gaaw génne ko bala ñoo julli ji ndax waxtu wi la war te léegi bu ñu jëkkee ba julli ji ba ñëw léegi de ko dafa wax ne ku ko génnee sarax nga génne waaye génne woo muurum koor kon nag mënees na ko koy léegi nag liñ fii moom li ñu wax ne moo mooy mooy li ci gën a des ci kii mooy ñaari kilo ak genn wàll libar ñaari kilo yi ceeb ak genn wàll libar wala pepp wala genn wàll libar ndax li ci ëpp ci li dëkk bay dundee ci lañ ci lañ koy génne kon yaar yooyu moo li li ñuy dundee fi kon ñu gaawee ko bu baax tey ñaani tey xam ne nag génn nañ ci woor weeru koor waaye weeru ko liñ ci doon jàpp ak liñ ci bàyyi lépp de nañ ko gën a nañ ko gën a yokk lool daa mel ne lan ci doon yëngatu la ngir mu suñu yaram miin ko waaye diggante koor yeeg jàng alxuraan yi diggante jàng alxuraan yeeg eh, saraxa yeeg joxe yi lépp rek nan nañ ak jaamu yàlla yi nañ ko gën a ful ni ñu ko fulee woon ci koor gi asalaamaaleykum